Assalamualaikum TV nañ dox ak jogass asalaamaaleykum eh, ak mbokki auditeur ak auditrice ci ñi déglu ci xibaar nawetaan comme ñi nga xamantene mom lañ koy défé rek à chaque fois que ay match am ñi ñew rek eh, joxé li nga xamantene ñoy e résultat yi ak eh, programme yi nga xamantene ñoy e am Fletcher ci stade municipal de Babac tay ci samedi bi le 22 octobre 2022 ñu demaloon nañ leen ci e stade municipal de Babac amon na fa ñaari match ci catégorie cadette ci première heure bi euh, ci deuxième heure bi senior yi ñoo euh, ayewoon ci cadet bi nag euh, nekkoon na match boo xamante ne moo nekkoon dernier quart de finale yi ci championnat bi te ASC Waraba ak ASC gëm sa bopp bu Babak Olof ñoo fa doon laale ci première heure bi deuxième heure bi mu nekk deuxième demi-finale bi nga xamante ne ASC Waraba ak ASC Ngolaar laale nañ ci deuxième Euh, heure boobu nga xamante ne moo nekkoon demi-finale coupe mère bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ne mooy premier match bi euh, ci cadre yi euh, ASC Waraba ak ASC Gëm Sa Bopp ñu gis ne comme ni ma ko waxee rek bi tey moom match bi xawoon na xawoon na yéex lool wala sax football bi daal gisuñu koon foofu tey ndax gis nañu ne xale yi xëy na ni ñu commencé match bi ak ci tàngoor yi moo leen jàpp de telle sorte que euh, ñoom ñëpp dañoo sentiroon sax ne xawoon nañu am euh, fatigué tuuti ci li nga xamante ne mooy euh, surtout deuxième mi-temps bi ci match boobu ñu gis ne nag ASC ñaar yëpp ñu ngi doon raté ay occasion ba tax na sax bi match bi di jeex kenn dugalul ba sa sa morom bi ñu demee nag ci li nga xamante ne mooy jongante dàq door ci biir mbaal foofu nag euh, bu ñu defee taxaw seetlu même euh, la fois passée lors euh, di match de l'ASC Thiew en petite catégorie ak ASC dëggu leen gis nañ tamit ne euh, série tiro bi yi daal daa mel ni euh, xale yi duñ leen préparé dara ci te série tiro bi li ñu mën a constaté foofu ndax tey gis nañu ay tir au yoo xamante ne surtout ci cadets yi eh, da ngay gis eh, ñu ñëw dóor eh, gardien bi repoussé ko des joueurs yoo xamante ne daal bu ñu ñëw di tirer daal da ngay sentir ne kii day ñëw na mais du dugal en tout cas daal war nañu xoolaat loolu surtout coach yi jéem a xool xale ci entraînement yi ñu leen gën a travail li nga xamante mooy eh, série tiro bi ndax tey eh, gannaaw eh, bi ñu eggee ci tiro bi ci match boobu ci waraba ak gëm sa bopp waraba nag moo mujjee gagné ci ñetti bal ci cinq tir yi ñu door dugal nañu ñett yi as gëm sa bopp raté trois tir dugal ñaar kon donc moo nekkoon li nga xamante ne mooy première heure bi doon dox ci diggante ASC Waraba ak ASC Gëm Sa Bopp ASC eh, Waraba gagné ko ci kaddu yi bu ñëwee nag ci deuxième heure bi mu doon dox nag ci match bu ama am solo ci diggante Waraba ak eh, Ngolaar kon match bu neex a neex a neex eh, boo xoolee Ngolaar moom mooy détenteur du titre bëgg ñëw rek ñu génnee ko noonu noonu ci po mi day xaw a yombal gannaaw ba mu uh, génnee ci CNP bi te ci CNP bi sax dafa daje woon ak kii di Waraba ba tax na ba moo ko gagné ci CNP bi e, mu nekkoon match boo xamante tamit e, naru woon yomb ndax e, tey dañoo gis ASC Ngolaar boo xamante ne arbitre dafa siffle rek mu nekk ci camp ASC Waraba de même chose aussi à Waraba xamal na ne match bi du yomb moo taxoon eh, tamit eh, am nañu taxawaay lool ci li nga xamante ne surtout mooy eh, seen défense bi malgré que attaque Ngolaar yeneen saa ñu percé bëgg a sonal seen défense mais yombutoon lool lool lool ci li nga xamante ne moom la ñu gis tey ci li nga xamante ne mooy stade municipal de Babac bi ñu demee noppalu bi dafa temb woon kenn dugal bi sa camp morom. ñu ñëw ci noppalu bi nag euh, ñu continué waat rek changement yeeg euh, tactique de jeu yi coach yi di gën a góorgóorlu ci li nga xamante ni ñooy euh, conseils yi ba ñu ñu footballé à la cinquante neuvième minute la kii di numéro dix bu ASC Ngolaar dugg rek wala sax mu benn perche ci défense su ASC Waraba Euh, jéem a euh, dribble mais rek bi mu gisee benn euh, poroxndol rek la ci benn missile mu dóor rek mu dugal li nga xamante ne mooy première bi boobu ci ci prix boobu sax la match boobu jeexee ci li nga xamante ne mooy première heure bi ASC Ngolaar gagné ASC Waraba ci benn bal ci dara aussi tey Ousmane gis nañu benn acte bu euh, ñoo xamante ne vraiment euh, lu ñu war a rafetlu la daa encadré quatre match li nga xamante ne moom moo doon jox ci diggante gëm sa bopp ak euh, waraba ci cadet yi gis nañ ne bi match bi jeex jeexee ASC waraba en catégorie cadet dañoo wër terrain bi yëpp di jéem a for li nga xamante ne mooy sachet plastique yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon foofu ñu def benn acte citoyen boo xamante ne vraiment Eh, ñëpp ku rafetlu eh, waa ASC Waraba seen cadre yi eh, di ramasser li nga xamante ne ñooy mbuus yi ñuy bàyyi ci terrain bi de l'autre côté nag ASC Ngolaar tey nag ñëw nañ nag benn animation culturelle boo xamante ne genre yooyu dañ koy bëgg di gis ci nawetaan ndax boo xoolee dañu ne ASC association culturelle et sportive kon mu ngi noonu genre yooyu daal vraiment day dundal nawetaan ndax tey moom gis nañu animation ca stade municipal de Babacar Ousmane euh, ci programme yi nga xamante ne mooy euh, ci dimanche 23 euh, octobre deux ci première heure bi am nañu dinañu am ca stade municipal de Babacar toujours ci li nga xamante ne mooy quart de finale CNP yi ASC Thiewo ak ASC Guy gi ci deuxième heure bi nak dinañ fa am ASC e Ndiol Diobass ak ASC e bu uh, put jakon do rek eh, lañ leen di jox dig ci suba di leen ñaanal ñu fanaan ak jàmm yaa ngi jëf TV nañ wax ak Diobass